عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéenay suivre Barham Universel Media gannaaw buñ jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di nuyu di leen ziyaare di baalu ñëpp àq tey baalu ñëpp àq mbokk yi comme ni ngeen ko xamee chaque lundi yéen a am seen xadis di jour fii nga xamante ne moom mooy Barham Universel Média ñu leen di indil chaque lundi li nga xamante ne moom mooy xadis di jour tey nag xadis bi dafa indi benn ñaan wala boog dafa indiwaat beneen ñaan boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko ñaan boo bi nga xamante ne am na loo xamante ne euh, comme feebar bi nga xamante ne tey jii ñu ngi koy dégg muy coronavirus euh, kon boog euh, tax tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni a'udhu bika min al barasi wal jununi wal juzaami wa min sayil bi sallallahu sallam dafa wax ne nee na allahumma yow suñu borom inni naka man de amuzu bika maa ngi uh, muslu minal barasi ci feebar bu ñuy woowee baras maanaam feebar bi nga xam ne ñu ngi koy woowee olof mu ngi koy woowee mbas mooy comme feebar bi nga xamante ne gis nañ ko tey jii muy coronavirus uh, moom yonent sallallahu alayhi wa ngi ñaan yàlla mu musal ko ci loolu waaye junuudi ak feebar bi nga xamante ne day danga dalay takkalikoo li nga xamante ne mooy sa xel maanaam feebar bi nga xam ne daf may dofloo wal juzaami ak feebar bi nga xamante ne tey jii day tax ñuy dagg samay cër euh, lu mel ni ngaana lu mel ni feebaru ngaana mu ngi muslu si loolu wa min say il asqaami ak bépp feebar boo xamante ne dafay lore yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ñaan ñaan boobu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga musal ma ci feebar bi nga xam ne mbas la ak feebar bi nga xam ne daf may dofloo ak feebar bi nga xam ne daf may ngaanaloo ak bépp feebar boo xamante ne rek feebar bu bon la maa ngi ciy muslu kon tey loolu moo nekkoon seen xadiis du jour bu alallaahi fal yatawakkalil mumini salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alayka salaatullahi thumma salaamu fa